salaamaaleykum rahmatullah mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar macha allah di am mbégte contentement di leen nuyoo ci dëkk bu sell bi di Ndiassane euh, macha allah tey nag ñu ñëw ci euh, bés bu ñu doon xaar euh, fii ci Ndiassane ñu fas ne wan leen lépp li nga xamante ni man moom la Ndiassane wara féete li nga xamante ni mooy fête bi tey ñu ñëw nag fii nag ci entrée Ndiassane ñëw ci daral bi fas yéene leen wan ndax xar yaa ngi jar gars yi naka la ñuy dundee li nga xamante ni moom mooy euh, euh, euh, Ndiassane ak njaayum xar bi donc du ñu def rek ci kanam tuuti daal di jël ñi nga xamante ni tey ñoom lañu fekk fii ñu fas yéene dëkk seen micro ñu wax ne nan la ñu toogee actuellement ci li nga xamante ni mooy njaayum xar bi. Aïcha mi ngi noonu sëñ bi ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyook mbokku Thiès info yi lay seetaan. waaw ñu ngi ziar bu baax mbokki info fii ngeen ñëw ci daral bi du ngeen fi ren ñu ngeen fi ay ati at mm. daral bi ren nag gis ngeen ko nii. xar yaa ngi nii nag yaa ngi nii bëy yaa ngi fi lépp lu ci waaye def ci Seydina Mohamed rek yàlla na ko Sëñ Tuubaa fayal boppam Seydina Mohamed fayal la ko boppam rajo bi tamit ñu bëgg mu gën a saw gën law gën a law ba tàq ñëpp daral bi nag mi ngi nii lépp la nga xamante ni moo fi xar su ngeen ko bëggee incha allah dina fi ñëw. mais que est ce que xar bi fi mu ne nii ak nag yeeg bëy mi ngi jar. waaw waaw macha allah njaayum xar mi ngi dox njaayum bëy mi ngi dox gis nga ko nii fi nekk nii si suba rek am nañ lu man juróom mel ni bëy yi nga xam jaay nañ ko. kon ni ëppoon na nii. waaw ëppoon na lii waaw li fi gis ne mm, ëppoon na lii. ëppoon na lii ëppoon na lii waaye li ne moom moo fi des rek. incha allah rabi fii gàmm gi jeex moom. ñu lépp mën naa jeex ci kattanu borom bi. naka naka ngeen koy dundee ak mbas mi nga xamante ne vraiment actuellement moo lëmbee àdduna bi yéen naka ngeen koy dundee. waaw ku fi ñëw ñu takk masque rek. raxasu jox la nga raxasu jox la nga raxasu takk mask moytu distance comme ni ñu ko waxee rek nga xamante ni ku nekk dina sàmm boppam ku nekk mooy sàmm boppam ci mos mi rek ñaan yàlla yàlla jële ko fi ci barke Seydina Mohamed li ngeen def nag kontaan nañ ci trop yal na yàlla barkeel bi jaar la ngi lay bu baax. jërëjëf waaw man nag maa ngi tudd Asfal dëkk Thiès ñu fii di jaay xar rek at nag kii lu leen ñuy dugg ñu ñoo nga ci lu ne. noonu euh, euh, ñu ngi leen nuyu bu baax ñu bëgg rek nga baaxee ñu tur bi ak sant bi. waaw ah, man Ndiaga Fall laa tudd. dëkk Tivaouane waaw dëkk nga ñëw fii tey nag ci njaayum xar bi. waa ñu naka ngeen koy dundee cher naam euh, xar yi cherul bëy yi cherul uh-huh. bon du nañ ko ci jàmm daal vraiment uh-huh. njënd am na euh, clients yi ñëw nañu. yi ñëw nañu. bon xar yi ñoo féete fii at bëy yi. Mhm. nag yi ñoo féete fële ci kaw. bu nga gis ne fële kon nag yi ñoo newoon ci kaw foofu ci kaw. Uh-huh. vraiment njënd am na et puis aussi li ñu gën ne aussi. li li ñu mhm. daaw. ren moom vraiment sécurité am na moom. Ah, waaw daaw amul woon amoon na sécurité bi dañoo dañoo teeloon a dem. Uh-huh. gars yi ñëw fii jaar fi. Hmm? bon li li sàcc leen. yëpp ñu yóbbu ko. ren nag waaw ren moom ren moom vraiment gis nga seen barrière yi nii mm-hmm. boo xoolee signe bi xam nga signe waa gendarmerie la ñoo fi nekk don mm-hmm. doon sillonné eh, tali bi ci la nekk gis nga oto ba ne uh-huh. fi la nekk vraiment ñu naan ñu ngi si jàmm moom seen xel waaw ñu si jàmm moom ñu ngi si en secret lañ nekk ñu si jàmm vraiment eh, bi bi gàmm gi desee ñaata fan ngeen ñëw fi no ñun bi màgg desee ñaari fan lañ ñëw uh-huh. ñaari fan lañ ñëw waa alhamdulilah boobu léegi ñoo ngi fi ci jàmm daal lañ nekk daal alhamdulilah waaw. lan ngay wax nag waa Sénégal ñi nga xam ñoo lay seetaan ak mbas mi. ah xanaa ñu jëm ñu ñu jëm fàggu rek gisoo man maa ngi maa ngi sama kaala nii xam nga gaaw a moo damay damay kaala foofu damay damay kaala rek. ma ñëwee fekk ma la nga def <laughs> ah, moo tax moo tax mënuma mënuma damay mais vraiment daal ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi góorgóorlu. ñu ngi ciy góorgóorlu. <laughs> mas mas vraiment ñu ngi ciy daal. côté na jërë ngeen jëf jërë jëf da nga fee am ay xar. ma di leen jàppale rek. Ah. Euh, waaw euh, baaxee ñu tur bi at sant bi ak fi nga jóge man Kër a Sarr. dëkku suñu Bamba Ñang fa laa jóge Gumba Jon. Gumba Jon <laughs> dafa mel ni sama jaam nga. Ah, waaw da fi am ay xar euh, est-ce que mën nga ñu wax njaay mi nu mu demee actuellement. waaw njaay mi de moom man de jaay naa léegi sax bu 37000. sama gars yi ñoo ma ko joxoon ma jaay ko 37000 loo kon ñu ngi leen di sant bu baax sécurité bi bari na maanaam yéen a ngi aar doomu aadama yi te nit na fu mu ne ñu ko ña koy aar ñu la war a àndal kon ñu ngi leen di sant bu wér a wér a wér a yéen fu askan wi nekk rek yéen a ngi leen di aar kon ki lay aar war nga ko xam ci doomu aadama ki nga xam ne mi ngi ñu ngi bañ jël sa alal mi ngi lay aar pour maanaam wayu ñëw sonal la kooku war nga ko sant gërëm ko sant nañ leen bu baax yàlla na leen yàlla fay li ngeen di def liggéey bu rafet la te fii sécurité bi bari mais papa dañu gis xar yi moom dafa xaw a ndaw la xara amul wala nu mu demee. xar yi maanaam am na ci am na yu mag de am na xar yu mag am yu ndaw loo bëgg rek am na. am na yu cinquante mille am yu soixante am yu quarante mille loo bëgg rek am na fi. Ah. waaw waaw yu cent mille moom bëriwu fi. bëriwu fi bëriwu fi nag yi nag bëri na moom nag moom. nag bëri na fi torop moom itam. nag bi waaw nag yi mi ngi jar. waaw waaw. ñu <laughs> voilà donc euh, mbokk yi comme ni ñu ko voilà donc euh, mbokku internetu Thiès info yi comme ni ñu leen ko waxee tout à l'heure jóge nañ nag ci daral bi doon xool waa daral bi naka la ñuy dundee gàmm gi ñu ngi fii nag ci biir marché bi euh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu. manager. yow dafa mel ni doo doo doo sénégalais de. waaw boo fekk xaaji sénégalais xaaji guinéen. ah xaaji sénégalais xaaji guinéen gi nga wolof quand même. waaw dégg naa tuuti wolof waaw. alors gàmm gi ren naka ngeen koy dundee ak marchandise yi. bon marchandise moo bariwul. bariwul bariwul waaw. ah bon en fait euh, ñu war a indi bagage ñoo amul accès pour voyager problème de coronavirus affaire mag yi ñuy def nii waaw loolu moo tan gars yi amul courage ren pour dem gën bagage bagage ancien bagage yi fi nekk loolu mooy gars yi jaay pour pour am dara quoi waaw. kon bon en fait euh, man daal waaw mënu ma wax man daal fii laa basé. yaa ngi Thiès. waaw non euh, Ndiassane waaw mais. Sénégal fii laa basé jaay waaw. Euh, marchandise bi nii fan lay jógee bijoux yi. franchement bari na fii dafa am Inde. Inde Chine Brésil. parce que gars yi yooyu yëpp du Afrique amul usine plaqué ñun jaaykat yi ñooy ñooy neex lami rek ñoo ñi Guinée la jógee wala Nigeria la jógee wala Côte d'Ivoire la jógee. foofu jógewul foofu xam nga lam mooy c'est-à-dire euh, je sais pas comment expliquer nga tubaab yi ñoo raw africain xel quoi ñoo bauxite bu ko jëlee Côte d'Ivoire contrat aluminium boobu si Côte d'Ivoire nu ñu ko yóbbee boo jiyee gars yi bari na ne plaqué Guinée. waaye Guinée dafa am box boo xamante ne mën na defaree ay plaqué dafa dafa bokk ay or léegi bu ñu ko defaree avant que ñu ko Sénégal contrat bi Guinée la ñu ko yóbbee. léegi bi Guinée la ñu ko yóbbee gars yi ñooy plaqué Guinée <laughs> sinon sans quoi Afrique amul usine plaqué. non non man parce que man yàgg yàgg naa si plaqué yi xam naa. at. waaw depuis 2004 waaye maa si liggéey si waaw waaw. alors euh, est-ce que mën nga ñu wax différent yi lan la plaqué bi plaqué bi ngalam ak yooyu bon en fait avant que Chine dugg si ngalam ngalam yi ça quitté à la Chine. Euh, euh, Inde. waaw waaw li ngalam la. tu vois. Mhm. non depuis chinois yi dugg. Ah. Chine fu ne la laal. lépp la yàqu. léegi mënoo xam ne lan chinois lan original lan mooy mais ñun bu bu ñëwee en tant que un bon client dinañ leen expliquer lii mooy original bi bii mooy baax bi prix ça bokkul prix bokkul bon sa dépend de la clientèle ak ça dépend de ton aussi li nga yor yaa ma gën a xam <laughs> voilà. alors euh, tey jii euh, ci gàmmu gi ku ne xamoon na ni daaw ak ren xaw naa wute tuuti ndax li nga xamante ni mooy coronavirus bi ngeen ñëw fii si euh, gàmmu gi tey ban impression ngeen am tey ci gàmmu bon en fait daaw. waaw léegi gisoo différence bi daaw air bi day fekk jaaykat bu nekk kontaan na franchement air bi air bi fekk yëpp kontaan parce que xam nga lu tax loolu bon xam nga événement yi jaaykat yi Touba la ñu commencé ba ñu commencé Touba Tivaouane Tivaouane Ndiassane ne Ndiassane moo siiw par rapport au matière de commerce ah Ndiassane moo siiw. parce que nit ñi dañ koy xaar. voilà xam siiw su ne am na Tivaouane am mais lu tax Ndiassane moo gën si étranger yi ba étranger yi yëpp benn la loo ñu ko boole benn la loo benn jaaykat fii nii boo duggee fii da ngay wax marché Mali wala marché Guinée mais fii xat bu nekk mi ngi fi Togolais Burkinabé Gabonais yëpp mi ngi fi. Guinée Bissau yëpp mi ngi fi. mais est-ce que gis ngeen seen bopp wala gisoo leen bon en fait xam moom yàlla moo ko yor yàlla mooy jaay yeneen bi jënd. mais dama la dégg tout à l'heure nga ne daaw ci moment bi fekk na ñëpp kontaan nañu ko ren kontaan. juñ juñ juñ moom doy na vraiment xel. yéen a ngi lakk. <laughs> non moom franchement engouement bi xool nga sa mais xam naa loolu feebar bi moo indi loolu. feebar bi moo indi loolu. sinon gars yi am na yéene pour jënd am na am nañ yéene pour jënd mais ba ñu ñëwee ba ñu waxee léegi prix trois téeméer am na ku yor ku yor quatre trois cent gis affaire bi téeméer boo war naan ndox bu sedd wala jënd benn tàngal loolu loolu mënu fay prix. waaw loolu mooy problème bi. donc prix ci euh, ci lan ak lan ñaata lay varier prix no non prix jaaru moom. ça dépend da ngay gis kii nii léegi. xam nga moom ñu làkk bi. bi Inde la. d'accord bi Inde la. bi Inde la bi nag. bi Chine la ah, xam ne lii dina bi Inde la bi bi <laughs> te bokkul même bokkul même prix yi 600 la bi 300. ok. yow boo xamul nga ne yëpp yëpp benn la. fekk am na am différence am na différence. kon daal maanaam daal yéen ñi di jaay daal il faut ngeen gëm tuuti. aussi pour mën a justement comme par exemple man boo ñëwee dina la boo génnee lii nga ne 300 nga ne ah lu tax mbii gën 300 mbii gën 600 dina la wax lii moom bii deuxième choix la. mais am na ñoo xam ni nga ko expliqué ñoom du leen ci fekk dañuy ñëw rek. bon xam nga ku nekk xam nga place bu mel nii place bu mel nii car macha allah doo ko gis nga jaay moom fekk nga nekk en nga woo li fi nekk ku bëgg jënd jënd bu ku bëgg jënd na bàyyi parce que adduna bi kenn fi des da ngay delloo de <laughs> voilà yàlla na yéex <laughs> bu noonu la da ngay gis yenn jaaykat yi ni jëkk-jëkk rek am xaalis jëkk-jëkk rek waat daanu loolu loolu ko war parce que du du wax li fi nekk waaye boo ko jaayee léegi benn nit nga jaay ko 1000 francs ah fekk téeméer lay jar lu mu jooyee noonu baaxul si sa jaay waaw intérêt baax na de mais intérêt yi yóbbu baaxul. macha allah wax nga am solo ñu ngi sant bu baax di la gërëm sa kàddu yu mujj rek lan la. ah. sama kàddu bu mujj. waaw sama bu mujj maa ngi sant euh, waa Ndiassane maa ngi leen gërëm ak seen mu nekk euh, pour le moment maa ngi leen sant xalifa Ndiassane yëpp seen yi yëpp franchement Ndiassane boo xamante ne recevoir gan. xam nga dëkk ndoyxul mën a recevoir gan waaye benn c'est le seul dëkk yi nga xamante ne dem si Magal doole gàmmu gàmmu fii ni yàgg 3 mois 4 mois ba 6 mois kenn du la wax jugu leen fii ñu ñibale. kon di ngeen si toog ba 6 mois. ma ne la c'est le seul région biir Sénégal waaye man Sénégal dara réeru ma si jugu fi ba Casamance ba Sédhiou ba Kolda xam naa si yëpp ba Bignona xam naa si yëpp. waaye yàgg na sa bi mais c'est le seul raison loolu kay du ma ko rus loolu c'est le seul raison nga yow nga samp kenn du la wax jugal fi loolu kay c'est pas la première depuis 2004 maa ngi Ndiassane. kon xalif bi jaar naa sant. waaw fekk na Ndiassane fii la yemoon jaay bi fii la yemoon si rond bi fii fii yëpp àll la woon boo ko taxaw fii ba bandi kar la <laughs> temps boobu boo jëlee ñu développé ndànk-ndànk ça grâce à dëkk boo xamante ne amul étranger du dëkk. boo déggee dëkk bu neex boo gisee ne Sénégal Sénégal adduna bi ñëpp ne Sénégal xam nga lu war loolu di Sénégalais de seen xol bu ngi bokk ak nit ñi loolu moo tax nit ñi day ñëw. Sénégalais xam nañ teraanga de. waaw non ah, lan lan la wax dëkk bu nekk am na teranga mais day wuutante boo gisee tey Amérique moo gën a rëy lu tax Amérique rëy bon états yëpp ñu ngi foofu loolu ñuy développé voilà xam nga ñun tam ñu ngi indi nii mu amee fii 100 francs juróomi fii nañ ko lekk. <laughs> obligatoire voilà voilà. maa moo moo jabaru sénégalais. non sama benn nooy neex na sénégalais la. <laughs> merci beaucoup. waaw man man tam maa xamante ne dama bëgg fii dégg. dama bëgg fii terrain fii fii dama ko. Sénégal terrain. non du Sénégal du Sénégal de Ndiassane Ah, waaw sama nooy neex mi ngi fi ah, dafa am <laughs> kon soxna si dafa am lu may jàllale quoi. maa ngi nuyu ñëpp da nuyu kulli jaakate jaaru quoi. kii moom sama xarit la. waaw maa ngi jégalu kii loo ndam si lañ koy wax. ñu ñu xam nga si loo américain bu cees cees laa nekk quoi kii sama grand la sama lépp la. depuis 300 euh, maa ngi koy fekk fii. xam nga plaque original lay jaay ay ngalam. bépp plaqué bu lu plaqué junni rek da koy jaay quoi lépp lu or yi tëgg moom day tëgg plaqué am day woote siin rek gars yi xam nga gars yi indil ko quoi kon maa ngi maa ngi koy félicité bu baax mu nekk borom baax nekk bàyyi ku ñàkk kañaan quoi xam nga man nag ci Cees laay béyee koo quoi. yow ci lan ngay liggéey man si lii lay liggéey sa jaar yu lay liggéey quoi. d'accord temps dama koy jaay ay engrais quoi. Ah, comprendre man bagage yi euh, magasin bi place euh, mu nga nekk Thiès. Ah, waaw dama ñëw pour jaay sa en gros bagage yaa ngi dama koy libere dellu ñibaar Thiès quoi. macha allah waa njaay mi sant yàlla rek. Ah, xam nga par xam nga daaw ren duñ bokk nag. Ah, daaw franchement daaw nag moo gën a neex quoi xam nga rek. ren ak mbas waaw corona bi la ñu ngi ñaan yàlla balaa jëf yee jeex rek ngeen jeexal lépp. amiin ah macha allah. yaa ngi fi yàlla génnee jàmm. barki sama Serigne bi. léegi lu may jàll missage bi képp ku jënd engrais rek na nga ñëw cees adresse bi euh, soo ñëwee. am fi plaque yu original lépp lépp loo xam ne baay takkaay rek dañ koy takk si loos dañ koy takk si baat. lépp lépp am na quoi. ñu ngi lay jaajëfee kontaan nañu. kon maa ngi lay féliciter yow borom baax nga yal na la yàlla may wér. amiin amiin yal na la yàlla may fan. yal na la yàlla may wér. barki Serigne Saliou Mbacke. may ko may ko may ko caméra bi caméra maa bi mi ngi noonu nag ginnaaw bi ñu jógee ci ñi nga xamante ni dañuy jaay bijoux ñu ngi ñëw nag ci sawa mbokk malien yi ñu laaj leen rek njaay mi nu mu tëddee soxna si. Euh, sénégalais ou malien ou. malienne malienne. waaw mais mën nga wax olof. waaw dégg naa olof. ayca nuyool nuyool askanu Sénégal. waaw ah, salaamaaleykum maa leen nuyu yéen ñëpp. Mhm. ah ñun ñëw nañ Ndiassane man Bintu Konaté la. Bintu Konaté waaw ayca nañ la macha nga nekk di mhm. mi fu nekk nii. njaay bi waa euh, ins euh, Ndiassane gàmmu bu mosaan a am. Mhm. bu ñu waxee gàmmu deux jours des na si nga commencé di jaay. Oh. mais tey njaay bi déw tey lañu doon commencé client sax bariwul clients yu bëri ñëwuñu international yu bëri ñëwul Gambie danaan danañ ñëw Guinée Bissau Guinée Conakry mais année bi Gambie bëriwul sax li ñëw mais Guinée yi leen. gisoo leen lu ko waral. ah peut-être yi la. coronavirus waaw waaw waaw waaw corona bi xam naa moom la. fan nga jógee yow. Mali Mali nga jógee. waaw bi nga ñëw amoo problème. de. parce que frontière bi bàyyi nañ ko. dox a waaw tuuti tuuti rek. tuuti tuuti waaw heure daan fekk client yi bari ba yow doo am mën a sax taxaw doo am temps pour taxaw. macha allah waaw heure bi daan fekk doo am sax temps pour taxaw. kañ ngeen fas yéene dellu. am naa dans quinze jours incha allah kon incha allah ba ak lan ak lan ak ñoo ngi dañuy jaay yi bagage nag bari na dañuy jaay cuub dañuy jaay brodé dañuy jaay kaala cuub premier choix designer bu nu cuub am na am na deuxième choix léger aussi nouveau modèle am na Facebook waaw ak léger takk yëpp am na. alors ginnaaw bi ñu jógee ci njaay mi tey euh, njaasaan bi naka naka nga ko dundee ginnaaw bu ñu waxee ci njaay ba pare. Mhm. gàmm gi tey naka nga ko dundee. ah macha allah comme toujours rek comme toujours parce que ñun gàmm gi bu ñu ñëwee toujours fii lay fii lay fii la ñuy nekk ñun gàmm gi toujours ñun fii la ñuy toog moo tax mais comme toujours rek. wala place yi ngeen di def. dañ mhm. leen koy jox noonu wala da di fay. waaw dañuy fay chaque année mais nag cherul aussi. waaw place 2 euh, mètres trent mille la. 30 000 waaw maanaam kon euh, waa Ndiassane dañuy waaw waaw allah place yi cherul baax na waaw. xanaa ñu ñëw jënd bagage yi macha allah. waaw ñu ñëw jënd parce que bagage yi rafet na te cherul. Mhm. bon prix incha allah pris yëpp abordable na mhm. ci mbas mi actuellement li tax li mu ralentir économie beeg yooyu yéen jaaykat yi lan waaw métti na trop métti na trop surtout ñun laal nañu bu baax a baax a baax parce que suñu liggéey yëpp presque sa fond yëpp lekk nga ko ba làkkee yëfu jàmbur ah, instant bi moom métti na trop mais nag yàlla baax na waaw yàlla baax na ah, euh, cuub yi ngeen di jaay ak tuuti euh, prix bi ci nan lay varié waaw prix am na 30 bu dee riche yi mhm. waaw par par mètre la am na 3 mètres am na 4 mètres am na grand bu boosi mhm. waaw am na 35 000 ba si ba si kaw waaw sant waaw bu fekkee léger yi aussi am na dix mille am na douze mille mm-hmm. waaw prix dafa dafa varié waaw dafay varié waaw ok sant di la gërëm merci beaucoup ñaan yàlla marché amina ya rabbi amina ya rabbi ngeen di ñibbi allahumma amin allahumma mi ngi noonu aada ñu yeggali rek ak euh, ñi nga xamante ni ñooy euh, mbokk euh, gàmm gi tey ak Njaasaan macha allah. Ada Ada jëndalal madame ci ci am moom. <laughs> li bett la mi ngi noonu ñu continuer rek di waxtaan ak suñu mbokk jaaykat yi ah, fii si Ndiassane yaay booy ñu ngi lay nuyu. ah ñoo ngi leen di fay sama doom. bu baaxee ñu tur beeg sant bi. man Adja Marème Mbaye laa tudd. rey mbay ba suuf ah noonu la de. yow loolu sant yow tamit. pour Guédé. macha allah ah, li nga ñu li nga ñu teeroo nii rafet na trop macha allah. Mhm. lemal ni Yacine. ayca ndax mën nga ñu wax ci euh, Ndiassane bi tey ak njaay mi nu muy doxee actuellement. waaw fi mu toll nii ñoo ngi ñëw. client yaa ngi ñëw ñoo ngi dugg si exposé nañu suñuy produit suñu marchandise mhm. nit ñi tàmman ko daal waaw mais par rapport ak mbas mi est-ce que na mu daan doxee mu ngi dox ba tey. par rapport ak mbas mi na xam nga il faut mu am lu wàññeeku mais nag quand même ñoo ngi sant yàlla daal dëgg yàlla. ndax mën nga ñu wax yow fan nga jóge man Thiès Thiès laa de waaw Thiès laa jóge ñëw damay jaay si ñun ñëpp ñëw di jaay si. cuub bi nii ngay jaay def nga si ñaata at. yàgg na. def naa ci plus de vingt ans de yàgg naa ci trop. macha mu mel ni ki ñu jàkkaarloo ku xam cuub la. nii cuub rek laa xam ndax moom lay mooy sama liggéey. yaa ma koy liggéeyal Mali lay jóge bu Mali la. Mhm. ñoom ñoo koy liggéey dinañ ko indil ñuy jaay mhm. waaw. Euh, cuub yi nag bu ci nekk dafa am euh, ay ay am na premier choix am na deuxième choix yow yëpp ngay jaay. waaw yëpp laay jaay. am na riche. na deuxième. am na léger mhm. waaw. yii yëpp yi gis nga yi ay léger la. ay léger ay léger yaa ngi nii rafet na tubaarkaal la. jëlal léger. <laughs> ginnaaw ginnaaw ginnaaw que am na yeneen tissu si jaay ay brodé yi ni mel wala. cuub rek jaay yow daal boole yëpp rek. jaxase mélange yëpp dañuy boole jaay. prix yi mu toll cher na cherul. prix abordable nag cherul waaw abordable na parce que en la ñuy jaay waaw. Euh, euh, tey ginnaaw njaay mi ñuy waxtaanee Ndiassane ci boppam chaque année da ngay ñëw. Euh, lan nga ñu mën a wax ci gàmmu gi. Ah, macha allah gàmmu moom dëgg yàlla ñun ñëpp ci kenn ku ci nekk daal jaa ngi ñëw di liggéey si di daan sa doole di ci wut loo yóbbu sa ko di wut loo sutur loo dëgg yàlla macha allah ñu ngi ciy sant yàlla daal sant bu baax a baax. bu gàmmu gi paasee di ngeen fi def ñaata fan. waaw daan fi xaw a yàgg nag daan fi xaw a yàgg nag dëkk bi dafa laa biir daal macha allah. mais mais est que bu gàmmu gi paasee du ngeen yokk prix yi. non non non duñ ko yokk. def yëpp jaaykat yooyu. ñun def yooyu de. ñun benn prix rek la ñuy jaay ndax dañu bëgg kenn ku ne gis gis sa bopp. waaw ah, ah, yàlla. sa kàddu yi mujj lan la. xanaa sama mbokk jigéen ñi. xanaa kontaan ci mbokk jigéen te leen nag nanu ñëw jënd si nag. Njaasaan ji ubbi na ay nouveauté am na. moins cher prix abordable nanu ñëw maa ngi fi daal Adja Marème ngi fii daal. waaw yéen rek ñu fi tax a ñëw nag. ñu ngi lay kontaanee bu baax di ñaan yàlla marchandise bi yàlla na jar ak jàmm. amiin yéen tamit seen na ci yàlla def barke. waaw seen taxawaay rafet na waa Thiès Info. ah macha allah ñun ñu yéen yéen lañ fi nekkal sunu waa Thiès waa moo tax yéen yéen fi nekkal. waa ca. alors euh, bonjour maman. bonjour ça va. est-ce que vous pouvez 30 eh. Alors, euh, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu comment est-ce que vous préparez euh, Bon, on prépare du karité avec du comme chose que je, je ne vois pas, sinon je vais lui expliquer. Ah. Bon, au Mali, on prépare bien les karatés. Mm. Tu as compris mm. On prépare bien les karatés parce que comme ça, là, mm. il n'y a pas de ménage. Mm-hmm. Tu peux ah, prendre ça pour manger. Ah même si tu es en train de préparer les bouillies comme boc, oui. tu mets un peu de la, euh, là-dessus, tu mets euh, ça bouille. puis si ça fini de, fini mm-hmm. tu, tu, manger ça. te donne rien, ça te fait rien. Est-ce que tu me comprends? Il a pas d'effet secondaire. Parce que tout est normal. Naturel. comme ça. Mais Il y a trop de gens qui mélangent avec du safran. Qui sont pas des Maliens. Mais leur travail, c'est gâter les noms des gens. Quoi. Sinon, les bons euh, quartiers, c'est ça. Est-ce que tu as compris ah, euh, Comme soleil. Ah. y a trop de soleil. Ah, les bons quartiers là, ça descend. Si le soleil s'échauffe. Lui, elle, elle se descend. Alors, la préparation, oui. ça prend combien de temps Bon, tu peux commencer à préparer la karité plus de trois jours. Trois jours, tu es en train de préparer pour que ça soit bon et correct. Alors, vous mettez combien de... Vous mettez des produits naturels? Non, non, non. Rien, rien. rien. On mélange avec la main. on fait comme ça. savoir comment on peut faire pour que ça Bon, il a du feuille. Ah, a des feuilles. Il mhm. a du comme tu tu Comme les mangues. Les, mangues comme tu vois mangue dans son feuille là. Ah, oh, on mange euh, les mhm. on met ça dans une maison chaude. Puisqu'il n'a qu'à se euh, euh, détacher son corps. Quoi. Uh-huh. Après, on met ça dans une calebasse. On fait comme ça. Non, on fait comme ça dans notre main. On fait comme ça. On ne fait pas avec, on ne mélange on ne fait Naturellement, on fait comme ça dans notre main. Bon, il y a certains gens qui mélangent, mais pas le malien. Bon, à Sénégal, il y a trop de mélange. Même on, nous, on voit le safran, mais Mali, on ne connaît pas safran. C'est ici même, moi, j'ai vu safran. Moi, je n'ai jamais vu safran au Mali. le bouille. comme boc. Boc, tu bouilles avec ça. Après ça, tu manges. ça te donne rien. Esprit, tu frottes. Si tu as du mal dans ton dos, ou bien tu as un peu d'estomac, tu mets ça dans l'eau chaude et tu bois. Ça va diminuer l'estomac aussi. Carter là, ça soigne tout. pour moi. Bon, quand même, on vendait les cartes à 1200, 1300. 1300, 1200. Bon, il y a dit quelqu'un qui vend à son prix. Tout le monde a son prix ici. Moi, je ne dis pas pour quelqu'un. Pour moi, je vendais à 1200, 1300. Est-ce que tu as compris Merci. Et comment vous voyez actuellement euh, euh, euh, le gamo actuellement à Ndiassa Bon, le marchandise, ça eh, petit à petit, on se plaint pas. Quand même, on, on, ça commence. Ça commence aujourd'hui, on est de regarder si ça aller, Inch'Allah. Dieu est Merci beaucoup. De rien. Merci à toi. Mon nom c'est Kadiatou Keita. Ah, moi c'est Kadiatou. Hein? <laughs> moi aussi c'est ah, ah, ah, Merci beaucoup. Je suis vraiment très contente. Merci beaucoup. Et félicitations pour le travail. alors euh, bu ma donnee votre numéro comme ça quand ça. soxna si euh, ma wax olof boog baaxee ñu bi. su la neexee Fatou Touré laa tudd. Fatou ngi fii. alors da mel ni da jaay ay karité ay savon est-ce nga ñu wax ci savon yi. waaw lu ni saabu Côte d'Ivoire la. à la base de carotte. base de carotte. waaw am na aya. am na coco. Mhm. am na citron. Mhm. Euh, gommage la am na am na meew pour sa yaram mu lis. soo sangu bula la neex doo xeesal. parce que am amul xeme loolu moo tax. saabu Mali day xasan sa yaram mais du saabu Mali. saabu Côte d'Ivoire la. d'accord toujours naturel la. bi maa ngi jaay 1000 francs prix en may jaay 700. 700 bi mooy kooku la. aloe vera la moom tamit dafa baax pour teint noir parce que day raxas sa peau mu dindi gracieux bu ci nekk bu baax. bële dafa mel ni miel la wala. waaw bi la. bi tamit moom original la baax na pour nga xees wala nga ñuul même góor sa day sangu ko. voilà kon savon yi daal pour ku xees ku ñuul góor ak la euh, mi ngi jar 2000 francs même en gros 2000 la parce que c'est original mën na ko loo nekk di mel nag loolu lay yóbbu sa yaram. góor jigéen yëpp mën na ko utiliser. c'est combien. bii 2000 lay jaay. d'accord alors gis lu mel lu ma gëj a <laughs> xam naa nga gëj. non depuis gis. waaw bi ndiir la. Uh-huh. parce que dafa baax ci góor te si daa baax si euh, day raxas sa kër soo amee jinjeer nga pressé ko ak moom dafa baax. am na maladie cholestérol du ñëw sa yaram. c'est original parce que lépp euh, ci dëkk bi la judd. waa bi lañ mën yëpp mën nañ ko utilise waaw soo def lii nga def jinjeer nga def bu mu neex mhm. baax na trop ci sa yaram. ok euh, njaay mi actuellement ndax mi ngi dox. waa ñoo sant yàlla bu baax parce que bu mu mayee ñu ñu xëy rek di jaay jaay bi baax na alhamdulilah. mais cuubi daa taxaw de client Sénégal yi tey dañoo jël bu sew kese dañoo bañ pour cuub. cuubi daal dafa mel dañoo daw. waaw waaw parce que. mais est-ce que cuubi euh, cherul aussi. non non cherul mais dédouanement bi daa yokk 3 mètres riz dañ doon jaay en gros 30 mais ren en gros c'est 32 500. waaw parce que transport bi daa gën a cher bu baax a baax. loolu moo tax mbas bi na moo ko andi. moo ko parce que confinement bi daa tasaare euh, malien yëpp man mi dama fekk Touba plus de sept mois laa am foofu loolu laa am foofu Touba ma toog sept mois du ma du ma defee dara du ma dem fenn parce que loolu la loolu la demee rek moo tax. Dramé avec Coga na bii si dem Mali la <laughs> mais dafa neex waaye soo am estomac da sonal. ok bu daf lay sonal parce que daa foro. ok d'accord eh, eh, que avant ma am avant ma am 10 ans ba léegi maa ngi ñëw fii hmm. déjà j'ai 21 ans. Ah, Ndiassane neex na trop wax naa man taalibe Serigne Touba la de mais Mame Bou Kounta defar na Ndiassane lu waay amee boo indi fii dina jeex sa jaaxle sa boo dugg dina dey Ndiassane dëkk bu rafet la bu baax la ñu ñaan ci yàlla ci xasida Serigne Touba bi mu def ci kaw ci kanam Ndiassane bi ban la Thiès Info Thiès Info ah, yal na yàlla dolli seen sutura def leen ñu doon xam naa ni télé bu sopp bi la man damay déglu seen ay information ci internet bi mais toujours di diine daf leen ñor kenn du leen xeeb parce que doo leen tuuti incha allah alaka suuku jara <laughs>